ñoo toog xool waxtaan xool avec le recul ñu xool na xam ne jeunesse Touba ñu nekk dañoo nekk euh, parents pauvres ci gouver ci état du Sénégal de Senghor jusqu'à Macky Sall mais ñun puisque ñun suñu jamono Macky Sall lañ tombeel jamono ñu nekk ay jeunes moo waral ñu toog xool xam ne Macky Sall am na quatre ministres de la jeunesse euh, le premier ministre de la jeunesse muy Benoît Sambou moom d'ailleurs sax moom mosu fee teg tànkam fii ci euh, département de Mbacké rawatina commune Touba bi loolu amee ki ko remplacé moom Mame Mbaye Mame Mbaye kooku il a essayé soit peu mais bi loolu jeexee euh, ñaar ñi remplacé Mame Mbaye Niang defuñu fi dara muy ku ci mel ni Pape Gorgui Ndong Néné Fatoumata Tall mi nga xam ne tey mooy l'actuel ministre de la jeunesse ñu xool ne am na li ñuy wax dans ministère des domaines agricole communautaire bien vrai que gis nañu ministère am maanaam pouvoir yi mu amoon yëpp amatu ko ndax emploi yooyu yëpp génne nañ ko ci ministère am mais gis nañu am na loo xam ne war na ko mën a servir département de Mbacké rawatina commune Touba muy domaine agricole communautaire ndax tey Touba nekk na commune boo xam ne tey ñu wax ni mooy la deuxième ville du Sénégal doo fi gis benn usine boo xam ne ñu ne état du Sénégal moo ko fi érigé pour ay ay jeunes di fi xëy ñu école amuñu dara li ñu am mooy euh, gone yi dañuy jàngi alxuraan suñu paree ñuy dem jàngi métier yenn yi nga ñëw sax da ngay fekk sa njàngum métier weesu na léegi da ngay dugg dawali saret wala jéem a defi commerce wala nangam loolu nag moo tax tey ñu taxaw ni ministre de la jeunesse laajuñu ko xaalis laajuñu ko emploi laajuñu ko lenn lu ñu koy laaj mooy nañu jàppale érigé dans le département de Mbacké rawatina la commune de Touba un domaine agricole communautaire ñu koy wax ne nag na moytu ñu koy wax ne fii ci département de Mbacké wala commune de Touba tout est blanc comme neige parce que ñu koy wax ne ay gone yi koy wax nii ñoom contrôlé nañ leen mu leen di jox ay 100000 ay 50000 ñu nekkuñu ci loolu ñu nag moom ñu ci ëpp ñoo bokk parti ñeneen ñoo ci opposition bi waaye problème bi mooy il est temps nag ñu taxaw jàkkaarloog askan wi xamal leen ne Touba fës Touba fës parce que tamit tey Macky Sall mun nañ dem ba bàyyi Macky Sall mun nañ dem ba bàyyi Idriss Seck mun nañ dem ba bàyyi Sonko waaye dara àdduna jaralu ñu bàyyi Touba kon ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo yor les politiques publiques de jeunesse nañu gestu la jeunesse de Touba parce que tey jii nekkul n wala boog su nekkee ne Touba li muy perte élection yi moo tax gis nañu ne tey Ziguinchor il y a yoo xam ne ils ont bénéficié de la confiance du président de la république par décret te Ousmane Sonko da leen a jàpp gañe leen te teewul les privilèges euh, bi fa état war a yóbbu moo ngi ko fay yóbbu jeunesse bi di ci gis seen bopp ñun nag jeunesse de Touba dañoo sonn ci lii ministre de la la l'année passée à pareille heure la fi ñëw euh, ci vacances citoyennes dig nu euh, benn domaine agricole communautaire à Darou Rahman ba ñu waroon a dem visiter ko avec le conseil communal de la jeunesse mu ne mois dinañ ko jëmmal dinañ waxtaan ak pap Amadou saar mi yor DER bi mu jàppale leen ci seen i programme financement ndax ay jeunes ngeen depuis mu woon ñu ginnaaw ba léegi Furaat daal di xideen waaw ñu gis ko nag tey mu mel ni ku joxul considération département de Mbacké rawatina commune Touba ay nit taxaw fee di ko wax ne ñooñu ce sont des jeunes yoo xam ne tekkiwuñu dara ñu koy xamal ne rende de peut-être dafa tombé contexte Covid du def caravane de vacances citoyennes waaye yàlla su ko fi bàyyee boo beneen caravane ñëwaat dina fule tout le sol territoire national sauf Touba ndax dootuñu ko dootuñu may benn ministre de la jeunesse benn ministre de la jeunesse dootuñu ko may ngay ñëw fii si ay programme euh, ay ay programme lucratif ngay ñëw fii du ñu bëlëfe di ñu di ñu lëre loolu dootuñu ko may benn ministre il est temps nag ñun ñu téye suñu suñu destin en mais ndax Touba moo ñu gën a lépp que ça soit Macky Sall que sa soit premier ministre que ça soit ku mu munti doon fi nii dañoo jatuñu soccet comme état du Sénégal respecte la jeunesse de Touba. bi ñuy dund ñun jeunesse bi jafe-jafe yi ñuy dund ay jafe-jafe yu rëy la ay jafe-jafe yu garaaw yu metti parce que tey wax naa la ko yow yéen chaque jour ngeen couvrir ñu ne jeune sangam jam na jeune sangam garage daaru wala garage nangam wala saretu mbaam wala saretu fas parce que am na benn bombe écologique bombe bombe démographique buy ñëw préparé wuñ ko d'ici 10 ans su exploser du rimer avec l'image de Touba ndax jàngalewuñu nit ñi ay formation di leen jàppale ci ay financement ay yooyu mais li ñu leen di jàngal mooy euh, à l'approche de un événement ñu xool quelque deux trois jeunes quatre jeunes daal di leen jox benn affaire ñu nekk fii tey ku wax dara rek ñu ne non non intérêt tax muy wax non non loin de là ñu nekkuñ foofu ci lu ñu nekk mooy état du Sénégal nafi fi jëmmal loo xam ne lii jeunesse su Touba yëpp ñoo ciy xëy opposition comme pouvoir société civile ku politique ak ku politique ñoom loolu mooy suñu problème tey soo xoolee amul lenn loo mën a joxoñ ci benn commune bu ñu la wax ne y' a plus de 1 million 10 pour cent ay jeunes lañ ñoo ngi âgé de 18 à 35 ans amul lenn loo xam ne état moo ko fi joxoñ loo xam ne jeune da ciy war a xëy di liggéey di daan dooleem loo xam ne day nekk loo xam ne dañ lay intégrer fonction publique heure boo déggee fonction publique Touba rek fonction publique locale la bokkañ loolu suñu problème loolu la ñu wax ne il faut mu dakk il faut mu dakk ñoo ngi wax président Macky Sall na instruire ses ministres de la jeunesse am ak le directeur ku ñu ko waxee domaine agricole euh, communautaire mooy Pape Malick Ndour lépp lu ñu def ci feneen waxuñ nañ ko defal nag ay sénégalais lañ mérité nañu ko waaye ñun tamit duñu ay burkinabé ñu ay malien terrain bi wàccewu ñu fi fii la ñu juddoo fii la ñu màggee fii la ñu fas yéene wuyu ji suñu borom nañ ñu defal comme ni ñu defal sénégalais yépp érigé nu fii benn domaine agricole communautaire